Génération FM. Génération FM, the best radio. Génération FM. daje bi euh, euh, euh, dem Matam dem djourbel té pour journaliste dafa am surtout dañu ci élection présidentielle contexte particulier donc formation bi c'est pour. ñaax journaliste yi renforcer leen ba nga xam ne euh, xabaar ji bon bi du jéggi si ñoom parce que tey xàmmeetuñu ñan kan mooy journaliste ak ak dul journaliste. donc euh, ñu fi teew tey xam nañu ñoom ay professionnels des médias lañu dañ leen war wala jox leen ay jumtukaay yi nga xam ne xabaar ji bon du mës a jéggi si ñoom. lu may xaar si jumaa mooy bu ñu bu ñu jógee fii tey euh, bépp xabaar boo xam ne jot nañ ko wala wala wala wala wala jël nga ko ci ci ci terrain bi ñu vérifier ko. xool ko xoolaat ko ba nga xam bu génnee lu yàq askan wi parce que dañu dañoo am cohésion sociale dañu dëkk dëkk bu rafet xabaar yi bon ne mun na yàq dëkk bi dëkk dëkkandoo bi aussi mun na aussi même détruire une personne moo tax bu ñu jëlee xabaar bi ñu saytu ko xool ko balaa ñu koy wasaare donc lu am solo la ci wàllu liggéeyu journaliste. Euh, journaliste aussi dañu naan aussi ñu tënku ci lu dañu naan déontologie dafa am journaliste dafa am ay ay sart yoo xam ñoo ko encadré.